tonto li nga xam ne war na ko doy na waar génn xeetu doy waar goo xam ne maanaam musiba ma bu kumba la moom Khalifa Ababacar Sall mi fi nekkoon maire bu Ndakaaru nee na lu gën a tuuti lii jël nañ si nit yóbbu ko sa kaso ba kon nag ñii nga xam ne def nañ njombe gu ñu toll ci xaalis bi nga xam ne coronavirus bi la ñu ko jagleeloon yoon na def liggéeyam ci mbir mi yéen kaay gi di réew mi quotidien njiitul Pastef di Ousmane Sonko ni ki démb ci janoo bi ñu doon janoo ak taskatu xabaar yi xamal na partenaire technique ak financier yu Sénégal ne xaalis bi nga xam ne joxe woon nañu ko ci coronavirus bi dañu ko daal di luubal Habib Sy ne partenaire technique yu Sénégal ñoom FMI ñoom banque mondiale 667 milliards yi nga xam ne joxoon nañ ko Sénégal xamuñu sax dañu ko may Sénégal wala dañu koo abal Sénégal na leer na xaalis boobee gars dañu ko sàkkal pexe journal bii di L'As nee na coalition Yewwi Askan Wi ñoom nag jamono ji ñoo ngi woote li nga xam ne mooy mobilisation fanweeri fan ak benn ci weeru décembre maanaam 31 décembre askanu Sénégal génn ci concert de casserole bi ngir nag bu baax a baax anam nga xam ne moom la ñu doxalee xaalis bi nga xam ne a kaay gi di réew mi quotidien Ousmane nee na Macky Sall mooy promoteur def ko tu ñaawteef yi ci réew maanaam mbooleem ñi nga xam ne dañuy luubal alalu réew mi Macky Sall mooy seen promoteur kaddu yi Ousmane Sonko la ndax nee na Macky Sall ak ñi mu àndal ñoo ngi leen di gis ci lu jëm ci wàllu mal gouvernance yorinu bona waaye tamit Macky Sall ak ñi mu àndal ñoo ngi leen di gis ci lu jëm ci wàllum yàq alalu réew mi Macky Sall ak ñi mu àndal ñoo ngi leen di gis ci lu jëm ci wàllum détournement xaalis askan wi yéen kay gi de Le Quotidien nee na mbir mi soo muy tuwule nag dina mujj fenn ndax njiitul Cour des maanaam dina bi ñu dénk wàllum justice di Ismaïla Madior Fall dina ko jébbal dossier bi yéenekaay gi du L'Observateur nee na rapport Cour des comptes bi nga xam ne génn na ci lu jëm ci xaalis bi ñu jagleeloon coronavirus gars yi ñoo ngi jéem a ci ubbi ab information judiciaire maanaam yóbbu ko fo mbax na doone benn xool kan ak kenn ñoo ci def ay luubala yéenekaay gi di Sud Quotidien nee na léegi Yewwi Askan Wi ak société civile bi ñoo ngi gën a taral li nga xam ne mooy xeex bi ndax nag société civile bi dinañu amal rassemblement fanweeri fan ci weeru décembre maanaam 30 décembre nee suba nga xam ne ñooy waa coalition Yewwi Askan Wi ñoom ak concert de casserole la ñu woote 31 décembre heure bi nga xam ne moom la Macky Sall yi def discours à la nation yéeni kaay gi de l'info ñoom Ousmane Sonko nee na askanu Sénégal soyons debout unis marchons vers l'essentiel askanu Sénégal ñun ñëpp nañu joxonte loxo a di taxaw dox ci l'essentiel xamal Macky Sall ne anam bi nga xam ne moom nga yore réew mi baaxu la waaye tamit xamal Macky Sall na ko askanu Sénégal jamono ji pare nañu ci yow li nga xam ne moo doy waar ci mbir mi yi nga xam ñoom def nañu ci ay luubal loole moo jégg dayoo yéene kaay gi di réew mi ko di cee xëy duñu xibaar naan ñu opposition bu Sénégal kañ la ñuy nekk benn ngir nag seenub xeex mën a gën a mucc ayib loolee kàddu yu Assane Samb la Abdoul Mbaye ci biir journal bi nee na moom Ousmane Sonko du leader am waaye moom Abdoul Mbaye nee na li nga xam ne mooy jàmmi opposition bi ñoom ñëpp ñu joxonte loxo yéene kaay gi de bi Tribune xëy duñu xibaar na ñu Macky Sall fukki weer moo ko dese ci bopp réew Sénégal mu nekk ci campagne ca diwaanu Tambacounda yéene gi de la Soleil ak bés nee na Macky Sall digg na ba xolam seet stade ca diwaanu Tamba ndax nee na ci atum 2023 jàpp 2025 lu toll ci cinq 500 milliards dina ko dugal Tamba yéen kaa gi di réew mi ko di jeex xëy ci club 50 pour cent de préférence nationale secteur privé national bu Sénégal ñenn ci ñoom dañoo bëgg def Sénégal un pays émergent club 50 pour cent espace la boo xam ne dañu fay waxtaanee di fa sottante ay xalaat yéen kaay gi de l'Observateur nee na secteur privé bu Sénégal piccoo ak mbaaloo bi nga xam ne moom la ñu nekkee ci seen biir loolee amul benn sens moom la ñu war a teg ci suufa waaye nag di fi taxawal ay association de gos à droite loolee amul benn njëriñ yéen kaay gi di la Réveil Quotidien ak Libération xëy di ñu xibaar naan ñu avocat yi Ousmane Sonko yi ñoom nag déposé nañu ab plainte ca table doyen de juge maanaam jëmale ko ci Mamour Diallo maître Sow Adji Sarr Sidi Ahmed Mbaye ak ku ñuy wax Viviane ak contre X Ousmane Sonko li mu leen jox xar bi baaraamu tuuma mooy lu jëm ci wàllum complot association de malfaiteurs lëngoo di def ay ñaawteef ak lu jëm ci wàllum corruption yéen kaay gi di enquête nee na lu jëm ci wàllum instruction mbirum Adji Sarr ak Ousmane 72 heures chrono noonu la ko journal bi xëy tuddee ndax nee na yàggatul dara doyen des juges dina jël dogal ci mbiri Adji Sarr Ousmane Sonko maanaam mbir dañu ko yóbbu jugement ñu àtte ko wala maanaam non lié avocat yi Ousmane yi ñoom nag am nañu ay waxtu ngir nag daal saytu li nga xam ne mooy dossier bi daal di def seeni observation yéene kaay gi di Sud Quotidien ñu xëy fekk fatas ko xabaar d'investigation bi di Pape Alé Niang moom nag nee dina ànd ak ngoroma li nga xam ne mooy liberté ma waaye waa PUR ñoom Cheikh Tidiane Youma ñoom nag nee nañu dinañu def ab contre expertise ci ëmb bi nga xam ne Amy Ndiaye Gniby ëmb na ko ndax ñoom waa PUR ñoom Cheikh Tidiane Youma ñoom nag jàpp nañu ne Amy Ndiaye Gniby dafa ëmb waaye ëmb la ndax am na yenn député yoo xam ne ñoom nee nañu Amy Ndiaye Gniby ëmb la loole moo tax waa PUR ñoom dañoo bëgg a def ab contre expertise ngir nag beneenu médecin saytu Amy Ndiaye Gniby mii ba xam dafa ëmb wala ëmb la yéene kaay gi de sunu làmb ñu xëy fekk fa a